mbokk yi mi ngi noonu kii ñu toogal fii kenn la ci koo xamante ne nii ah, mooy magum Moussa mi nga xamante ni moo fi bàyyi koo tey waaye du ñàkk ni dinañu expliquer lenn loo xamante ni nii ñu ngi koy wax ñu ci bari comprendre ñu kii mooy mag ci musaajum Dioum sang bi maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay fay sëñ bi euh, di la nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp to yi di. <clears throat> sant yàlla di julli si yonente bi di sant suñu ñaari waaju te di leen ñaanal ñu yàgg fi lool ba fekkee suñu njëriñ si ndimbalal yàlla ak mbaaxam te sant suñu sëriñ sëñ Fallou Fall Cheikh sëñ Cheikh Fall Khady Gueye waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax sunu rakk la topp si ñun sax am na ku topp si ñun moom mu doog a waaye daal lima ma si mën a xamal daal mooy ku yaruloo woon laabiir tabe am yërmande ku déggaloo ni kilifaam la ndax man bu daan ñëw sama néeg di wax ak man wallahi azim du jàkkaarloog man xool ma sax day tourné beneen côté bi fee di wax dama naan kii est ce que jar na muy dugg sama néeg sax di wax léeg-léeg man maay dem néegam di wax ak moom waaye daal euh, moom xam naa ne daal waaw yàlla na ko yàlla yërëm daal te yii xañu te may ñu mujj rafet ci barki Seydina Mohamed ndax am na loo xamante ne nii doo do yàlla daal baax na daal waaw yàlla bari na sutura daal. yow yow yaa nekkoon moom hôpital. waaw man ak sama benn waaw bàyyi laat may toog. ak euh, xaritam bi ñuy wax Malick Lay. waaw ñun ñett daal defe naa ne buñ la si waxul dara. keneen ku la ci wax rek day làmbatu. di wax day làmbatuy wax laa wax waaw xam nga mhm. senegal moom dafa baaxoo benn affaire nit ñi dañ tàmm bu dara xewee rek ku ne di ci am xam-xam mhm. loolu moo ñu sonal dañoo war a bàyyi lool tey sant yàlla bu baax te di ko doyloo di ko wóolu di ko yaakaar mhm. gis nga fii ku ne balaa ngay tëdd barke alxuraanu karim da nga war a toog ci sa digg lal guddi xool tey man lan laa defal sunu borom nga xalaat ko waaw ndax yow mi nga xam ne xoolal sunu borom jox la oxygène jox lay bët jox la gémmiñ jox lay loxo jox lay tànk jox lay nopp jox la activité foo bëgg a dem dem fa kon yow wallahi azim mosoo koo teg bët war ngaa journée bi balaa ngay tëdd war ngaa seet ne man lu ma defal suñu borom waaw war ko waaye waaye waaye yow yaa nekkoon ak moom ci hôpital waaw mais kañ nga dem ba xam ne Moussa mii kat euh, feebar. Moussa Moussa daal xam naa ne affaire bi moom euh, bu ay vingt jours vingt et un jours daal lay war a mot. kon nekkul feebar bu yàgg. déedéet du feebar bu yàgg de Moussa mu ngi doon dem di entraîner. saalu Unité 5 bi fii ku dem Unité 5 boo laajtee saal boobu foofu dinañ la wax kañ lañ gëj a gis Moussa. Moussa ngi doon dem di waaw ah, ah? am na tëral benn booy bu amoon tout sama combat xaw ma gàjja faama xaw ma kan man xaw ma ko man man Moussa rek moo ma daan yóbbu si làmb man Zallo moo nekk sama mbër sama xarit la waaw man làmb Moussa dafa juddu fekk ñu ñun ñu bëgg làmb mhm. di dox si làmb mhm. fii Moussa ñun dañ daan dem géej man ak sama benn xarit bi ñuy wax Moussa Touré mhm. moom mu toog nii di seetaan barki Seydina Mohamed ba mu yàgg mu commencé di développé may jaay Dakar ay kasetu vidéo bu may jaay nag yàlla suturaal ma am ay clients yoo xam ne dama leen daan luye ay kasetu vidéo waaw ñuy seetaan mhm. kaset bu ne cinq cent sa yooyu jamono Moussa ma jël ko clients yooyu ma njëkk am mhm. Moussa su xëysee ma jël yu bees yi yu doog a xew ma jox ko ko mu dem placer ko ñooñu man mi nga xamante ne nii maa ko njëkk si affaire bi ma dem tur retrouver ji yeneen nouveau client noonu laa daan doxale di def noonu léegi nag suñ ko laajoon dara da ko daan bind benn filma da ko daan bind man tamit noonu laa daan doxale suñ ma laajeen dama daan bind moo xamee loolu après ma denc ko su ma ñëwee dem si gars yi nga xam ne ñooy enregistré ma laaj leen ko ñu ne ma jëndal cassette ma jënd ñu ñu defalal ma ko. après ñu dund nañ ko. muy léegi mu jóge fii di dem dine ya montagne ya ba gis fa ñoom baabooy ñoom Zilbalde Eumeu Sène mu ànd ak ñoom Pikine waa di dem di dem écurie Pa Fallaye Balde nekk fa. di fa entraîné di di dem si mbapat yi mbapat yi fii fu ne na fa xam nga dama lay wax bëre dama lay wax benn affaire Moussa dafa mën a bëre macha allah mais nag yàlla mooy bindu wërsëg xam naa wërsëgam kiiwul lool si làmb ji comme yeneen gaay mais wallahi azim ah mhm, dàq ko bëre yombut de saa waa ji fii mbër yi nga xamante ni ñoo fi gën a graaw Zallo si la bokk Baboy si la bokk Zilbalde si la bok bokk Ama Sène si la bok te liy wane ne Ama Sène si la bokk tout récemment gis nga ni mu daane bomba tey jii boo leen ñooñu ma la limal boo leen toogoon laaj leen si Moussa Dioum dinañ la wax ay qualité Moussa Dioum ñooñu xam nañ Moussa Dioum. Euh, ku la jege woon la moom. waaw. léegi léegi ngay ak Moussa Dioum ba mu yàgg mu jàmbat tawat. waaw yaa ngi ko wax léegi nee nga euh, boo xoolee matul vingt jours. waaw ñëpp feebar bi lu yàggoon ci moom la muy sox. loolu bu fekkoon ne yàgg na kon ñu xam ko hmm. waaw bu yàggoon. waaw am xam ne da nga leen di wax ñu ne waaw léegi nag dama waaw mën nga bañ a yëg. nit moom dama lay waxal benn affaire du lépp ngay yëg. yàlla rek mooy yëg yëg lépp. Mm-hmm. léegi nag nit nag moom. del fa nga yem. foofa ngay xam ne fa nga yem. moom lan la daan jàmbat. moom tànk jàmbat ay taab man gis naa ko. ñaari taab ñoo nekkoon si tànku càmmoñ bi. waaw après ñu toj après bi taab bi tojee. ay une na après mu commencé takkaat dàllam di dem entraînement. après muy dem ci salle bi di entraîner waaw après ba mu entraîner bu lu yàgg. mais loolu yàgg na. loolu waaw bi affaire bi bu wëree yàgg na. waaw après muy dem di entraîner. bi muy entraîner ñëpp fàtte nañ affaire bi. moom Moussa voyage au Canada la doon préparé moom préparé woon la ba amoon na visa Canada barki Seydina Mohamed moom Canada la bëggoon dem xam nga li may leeral toujours rek li tax may wax yi mooy nit ñi nañ bàyyi di nit gént ñoom nit génte Dakar yow nga nekk ndar naan yaay nettali géntu jàmbur maanaam nga bëgg a wax loo xam ne xamoo ko Sénégal yi dafa war a bàyyi lool nañ bàyyi lool te ragal yàlla wóolu ko nañ bàyyi yooyu waaw ndax yow li ngay nettali te du dëgg xamoo ndax yow dina kii kii dem dana la raw moo tax sa leeral moom moo tax man may leeral di wax loolu ndax am na yoo xamante ne nii dama gis nit ñi di ko def ak di ko wax te dara jaru ko. gis mais ngeen dem ba mu yàgg euh, beneen génn. waaw maanaam. dafa jékki-jékki beneen génn boobu nag bi mu waaw ci beneen tànk bi nag nekk demul ci fi mu nekkoon ba droite bi la dem waaw bi mu ñëwee nag boobu yàggul après mu toj bi mu tojee mu jël ko di ko yóbbu camp sapeur quand sapeur pompier non ñu ngi ko doon faj lépp lañ ko doon faj yëpp lañ ko doon faj yëpp lañ ko doon faj waaw mais dama la bëgg a wax rek man li tax may wax mooy nit ñi dama bëgg ñu def ndànk ku nekk nay seet digganteem ak yàlla ak aqulaayu taala ndax ku si ne yàlla na ma baal nag mais ñu bëri dañoo yab yàlla tant que dee amul rek du ñu fàttalee ko yàlla fii doomu aadama bu ne suñu borom xam na ne sàcc bu dul raw nga moo tax du yëngatu fi mu nekk day toog waaw kay mu ngi toog rek moo tax nit lu muy wax na koy xalaat bu baax mu xalaat ne moom bu doon moom lañ ko koy waxal wala mu xalaat ne mbokkam lañ ko doon waxal dana ñaaw. dana ñaaw mu dem mu dem ba mu yàgg euh, ngeen yóbbu ko waaw tab bi def noonu léegi jeudi bi passé. Mhm. mu sawaay ñu gis ko daal niñ ko gisee daal mu. jaxasoo quoi xaritam bi ñëw ak man ak sama rakk bi bàyyi laat ñu ànd dem yóbbu ko ñun ñoo fa nekkoon ak moom biñ ko yóbbu boobu il faisait lan ay huit heures si guddi ah. ko biñ ko yóbboo mak bàyyi laat ñoo fa nekkoon bàyyi laat day fanaan foofu ah, ba mu demee dañ ko téye waaw day fanaan foofu waaw bàyyi laat day fanaan man su xëyee ay suba teel ma dem bàyyi laa ñëw tëdd noonu lañ daan man suma ma yeewoo yendu foofu di jënd garab yi waaw après lay day ñëw fekk ma foofu xaritam bi xaritam bi moom dama la bëgg a wax moom Moussa Dioum benn xarit rek la am muy Malick Lay to leer na leer na leer na ay mbokki Moussa Dioum waaw kooku xarit mooy xaritam ba léegi. léegi ci hôpital ah. jeudi lañ ko fa jeudi lundi mu gaañu. waaw. ay euh, xam naa ne daal ay après seize heures dix sept yooyu daal laa yaakaar ne. heure yooyu la war a. dese bi ko yëgee. dese bi docteur bee ma woo. waaw kon donc man kenn war na maa mën a nettali. man mi dem ba muri ko. ba mu won ma ko. Ah, man maa dem ba gis ko. ndax man kenn du ma wax dara may dem comme nii may wax ak yow rek man lu ma leerul bëgguma say wax. waaw bëgguma wax lu ma xamul ñaanu ko yàlla mukk parce que boo ma boo da ngay moytoo tooñ waaw te tamit dafa am ñoo xam ne ay doomu aadama yuy dund si biir nit ñi nga def loo xam ne après ñu toog di la ko sikkee fekk ñoom sikk soo si ñoom la nekk wala déggoo ma dégg ma bu baax da ngay am sa sikk di ko doxaale nga gis kële mu regle nga dem di ko ruux ay bant di ko ruux ba mu réagir nga naan kii ndekete jikko ji la yoroon fekk yow la boo ko bàyyi woon ni ngeen doon ànde di ngeen di ngeen di ngeen mën a ànd loolu li ma la si dollil mooy boo bàyyee sa mbokk di ànd ak mbokki jàmbur da ngay sonal sa bopp ndax ni ngay def mbokki jàmbur yooyu ba mën a ànd ak ñoom boo ko defoon sa mbokk ànd ak moom dëgg loolu dëgg man sama mbokk duma ko xarab duma ko sànni xeer duma ko wax dara damay ànd ak moom si njëkk ak teraanga si kàttanu yàlla ak mbaaxam Malick Lay moom ñu ngi koy sant ba fa sant yem ak magam ñu koy wax ma lay ñu ngi leen di sant bu baax Moussa Dioum carrière am yëpp da ko ànd ak moom lépp da ko ànd ak moom ànd ak moom si dignité ak ngor barki Seydina Mohamed. ñun yaa dem yaa dem ba ko daal. man waa ma ko ubbil ma ñëw ma sama rakk bi topp sama ginnaaw ñu gis ko. bi ngeen demee ba muri ko. bi ma bi ma non. bi ma demee sama àdduna dafa tukki. barki Seydina Mohamed sama loxo si bopp bi laa ko teg dama ko doon ñaanal rek booba. dama doon teg sama loxo di ko ñaanal barke alxuraanu karim ndax boobu daf fekk ma suma kurus di def ay salaatu ala nabi ma dem di koy yeggalee ci bopp bi noonu waaw waaye loolu du dara sunu borom a ñëw sunu borom li la war a yóbbu bu ñëwee barke Seydina Mohamed doo ko xam man du ma wax kenn lii lii la léeg-léeg la ay table woon yu génnoon yàlla jaarale ko fa wër ko yóbbu dogal suñu yàlla yàllaa ñëw dogal suñu borom a ñëw na ko ñëpp jàppee noonu. loolu daal moo gën commentaire ak di wax loo xam ne rafetul waaw man loolu daal laa leen di wax maa leen di sant nag yéen di leen gërëm te ñaanal suñu waajur yi ñu yàgg fi lool ba ñu fekkee suñu njëriñ si dooley suñu borom ak kattanam ak mbaaxam ak ay mayam si barke Seydina Mohamed si barke Xaadimu Rasul si barke maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla kattanal ñu ba ñu mën yor bu baax a baax a baax ba seen dara bañ a manqué ba ñeneen xecc to ñu koy def sans ngistal sans wonewu sans rëy si ndimbale yàlla tamit te yàlla tàggatal ñu def ñu ay dëgg-dëgg julli ñu ngi leen di sant di sant surtout tamit mbëri Sénégal yëpp gis nañ leen ñu ñëw fi ñu ñëw fi fële euh, est euh, hôpital Jules Balde laa fa njëkk a gis ak euh, ku ñuy wax Mbay Jàllo biñ demee Touba di ko suuli euh, gis na Modou Lo ñëw na taxaw taxawu ko moom tamit taxaw bu fii tamit gis nga Modou Lo ñëw na fi ak Papa ak mbër yëpp Gris Bordeaux Balla Gaye Baye Mandione mbër yu bëri ñëw nañ fi daal man daal mbër yi daal ñëw nañ Batika ñëw na fi ak Xaadim euh, mooy dañ ko doon wax Ousa numéro 2 ñoom ñëpp ñëw nañ fi waaw ñooñu sunuy rakk waaye nag. yàlla bëri na sutura daal. waaw jotu fee bàyyi ban. déedéet moo amul woon soxna gis nga sama doom yi sa barki Seydina Mohamed sama am naa sama doom boo xam dafa feebar sax parce que ñoom si moom lañ daan dem di kaf ak moom parce que moom dafa bëgg ay fo sama doom boobu da ko dégg dégg naa ni man gisuma ko de ba léegi dem ma fa sax dégg naa day wàccu rek dafa tiit waaw mais xam nga ni ñuy wax ndaw ak la mu miin bu loolu moo loolu moo ko dal xam naa mais nag yàlla baax na sant nañ leen bu baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waa jërë ngeen jëf yàlla leen yàlla fay barke Seydina Mohamed jërë ngeen jëf incha allah